بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على ginnaaw bi nu sante yàlla julli ci yonent bi ñoo ngi nuyu Serigne Mountakha Bachir xalif général des Mourides di ko ñaanal mu yàgg fi te ànd ak wér di nuyu Cheikh Mouhamadul Bachir Abdoul Khader porte yoonu Mouride di ko ñaanal mu yàgg fi te ànd ak wér di nuyu suñu bunt ci Serigne Touba di Serigne Cheikh Bombali di ko ñaanal mu yàgg fi te ànd ak wér gannaaw loolu li waraloon jotaay bi tey mooy ñu sant yàlla bu baax ci élection yi ñu génn jàmm ji ak dal bi mu àndal ak président de la république Macky Sall ak ministre de l'intérieur Antoine Diome di ko ndokkeel bu baax a baax ci démocratie bi nga xamante ni Sénégal wanewaat na xar kanam bu yees ci élection locale yi di ko féliciter aussi di indi ay leeral ci gox yu fasantikoo yi nga xamante ni jàpp nañ ni président de la république ak coalition bi mu bokk amu fa ndam euh, Sénégal 46 département la 39 yi Benno Bokk Yaakaar ñoo ko gagné bu doon élection présidentielle président de la république premier tour lay jàll. beneen bi ci des mooy opposition bi ñoo mës a gagné Ziguinchor ak Thiès ak Médina waaye dafa am ay attaques yoo xamante ni ñi ngi koy def jëmale ko ci président de la république. muy wax ne muy wane ni rek Sénégal réewu jàmm la réewu démocratie la beneen bi ci des ñi nga xam ni ñooy homme d'affaires yu sénégalais yi ñoom ñëpp ñi ngi am lu leen metti ci di seen diggante ak président makisal ndax réew homme d'affaires bu fekkee da leen a bàyyi fii jël lu ëpp ci réew mi dem di ko jox ñi nga xamante ni duñu ay doomi réew mi loolu kenn rafetluwu ko kon ñu koy ñaan rek na gestu ay homme d'affaires am ak secteur privé bi gën leen a dooleel gën leen a jox seen gëdd gën leen a jox seen wàccuwaay ñi nga xamante ni ñoo gañe ñu bokk ci parti présidentiel ñi ngi leen di féliciter di wax président de la république information yu bari yoo xamante ni ñi ngi ko koy jox ci askan bi ñi ko koy jox seen intérêt personnel moo tax waaye élection yi wane na ni moom président de la république la sénégalais yi bëgg ndax élection bu mu mës a wàcc ci terrain bi gañe na ko ñi nga xamante ni ñoo nekk ci wetam di ko jàppale ñu ci bari doo bàyyi ba élection jot nga bëgg a dem ci askan bi doo dem ngénte doo dem dëj doo dem gàmm doo dem màggal doo dem dara bu élection jotee nga bëgg ñu wooteel la loolu mënul nekk bala ngay dem ci nit ñi da xaar ba sekk ko ak ñoom nga doog a dem si nit ñi mais bu fekkee sekkoo kook ñoom ay élection am nga bëgg a dem pour sa intérêt bopp personnel wane ni président man fi ma nekk dañ maa gëm loolu da ngay gàcceel sa bopp te nit du weddi boppam duwaan bi ak poor bi cher na trop ci ñi nga xamante ni ñooy sénégalais yi ñi ngi wax président de la république na ko wàññi homme d'affaires yi nga xamante ni aussi ñoo nekk bitim réew di ay chinois di ay naar di ay turki di ay marocain ñu gis lu baree bari loo xam ne jox nañ leen ko ci wàllu liggéey doomi réew mi am nañ capacité bi mën nañ koo liggéey te bu fekkente ni da ngaa jiite des fois il faut ngay wax ak nit ñi nga xamante ni ñooy ñi la jege ndax li xew Touba. wane na ni bari na homme d'affaires ak ay nit yoo xamante ni lañ ko ko wax gis nañ ni dara amu ci ku mel ni président de la république waa Touba bëgg nañ ko mais boo xamul yoon bi ngay jaar lu ci baree baree bari day am gàcce yoo xamante ni du la bett ndax nit ñu bari xamoon nañu réalité bi am foofu. du ñu def nag lu dul félicité ki nga xam ni kenn la ci homme d'affaires yi di Serigne Mboup bu CCBM gàcce ngaalaama ndax dafa xar tànk tubayam. daf ko gëm dafa am loo xamante ni da ko wan waa Kaolack ci bi mu nekkee président chambre de commerce bu kaw Kaolack président Serigne Mboup liggéey la xam moom la gëm waaye nit ñi dañu xam ni président Serigne Mboup digganteem ak président de la république réeroo amu ci ndax li nga xam ni mooy expo bi amoon Dubaï bi ñuy dem moo président ñoo ànd ba ñu demee bokk nañu waxtaan ci lu yaatoo yaatu am na ci ñoo xamante ni aussi li sama frère Gaston Mbengue wax bërki démb ci benn journal dëgg la parce que am na ñoo xam ni dañuy yàqal président de la république rawatina ñi ngi nekk ci entourage am nit ñi bëgguñu leen nit ñi wegguñu leen nit ñi teguñu leen fenn avant ay élection di am nga am kàddu yoo yëkkati nga wax ko kooku ci saase la le président waroon a sanctionné parce que njiit bu fekkee dañ koy wutal ay noon ñi la koy wutal da ngay ko ak ñoom ndax Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar kon am na entourage du président de la république seen communication bu ñuy wax jëmale ko ci nit ñi loolu lu ko gën a ñaaw amul ñi ngi sant di gërëm ki nga xamante ni mooy le ministre Amadou Ba taxawaayam bu rafet bi nga xamante ni def na ko ci élection yi ndax élection buñ ko mës a jiital am na ci ndam mënoo bàyyi ba jours avant élection ngay attaqué Amadou Ba ci parcelle comme Moussa Sy loolu mu def dafa def loo xamante ni jëf ju ñaaw la parce que Amadou Ba ndakaaru bëgg nañ ko parcelle bëgg nañ ko président it am na ñoo xam ne génn woon na leen ci gouvernement ñooñu gis nañu ndam bu kawee bu nu am du ma si tudd kenn ndax tàgge boo dégg am na jàppal diw waaye na leen woowaat liggéeyaat ak ñoom ensemble jël ñi nga xamante ni am nañu capacité liggéey marché yi nga xam ni ñoo nekk fii ci Sénégal di ay doomu réew mi mu dooleel leen jox leen cër jox leen seen gëdd comme ni ko président Abdoulaye Wade doon defee créer ay hommes d'affaires yoo xam ni bala ngaa saxat bëgg dara sax nu dem teg ko ci sa loxo mais boo nekkee ci dëkk am say doomi réew nga war leen a gëstu war leen a jàppale ñu lay jaxaseeg ñoom di la wax lii di la wax laa bu élection amee aussi dangay tiire ay conséquences ci lan moo tax li am am kon ñi ngi félicité bu baax ki nga xamante ni mooy le ministre Amadou Ba ndakaaru lañ ko yemloo woon parce que wax ji dafa bari ñuy wax naan way Amadou Ba li tax demul ci yeneen dëkk yi Dakar rek la yem parce que Dakar lañ ko yemloo woon Moussa si aussi communication baaxul ci côté Amadou Ba baaxul ci côté parcelle parce que parcelle amadu Ba lañ bëgg beneen bi si tege am na ñu nekkoon ci mairie parcelle moom daf leen a dàq ci dàq bu ñaaw kon moom bu ñëwee lu mel bu mu bett kenn te xam ni nit ku nekk loo ji loolu ngay am ñi ngi gërëm di sant ministeur ki nga xam ni mooy Mansour Faye ci taxawaayam bu rafet wane na ni boo euh, woon wuyu si nañ ko ci di naqarlu violation yi nga xam ni moo ci am ci wàllu ci côté Médina euh, côté Kaolack boo gisee kii sama càmmoñ di Cheikh Ahmed Cissé ma invité ko ci point de press bi am na ci loo xamante ni jël nañ ko teg ko ci kawam may wax rek ni Sénégal dëkkul jàmm la Cheikh Béthio Thioune kenn ëpp ko doole ci Sénégal keloog bi ñu ko tuumalee loo xamante ni dafa war a wuy ji justice justice dafa jël bépp moyen débloqué ko dem jëli Cheikh Béthio Thioune di wax rek ni Sénégal amul ma sàmba amul ma demb ki nga xamante ni mooy bërki démb Ousmane Sonko bi ko Adji Sarr waxee li mu ko wax dañoo dem jëli ko ak tous les moyens kon ñi nga xamante ni ñoo def jëf jooju ñu ngi koy condamné di ko naqarlu di wax président de la république na joxe ordre ministre de la justice ministre de la justice joxe ordre procureur de la république bu Kaolack ubbi woon na dossier bi ba def ci enquête mais affaire yi ba léegi gisaatuñ ci loo xamante ni dal na xel moom jël na ay pour avocat ñu def ko jëf joo xam ne ci affaire u maa tey lañ ko teg Sénégal fii yàlla dëkkul Kaolack fii ñëpp ay doomu aadama lañ amul ma sàmba amul ma demba képp koo xamante ni def nga fi loo war def yoon dafa la war a jël teg la fi mu la war a teg teg la ay daan pour ñeneen ñi nga xamante ni ñoo nekk ci dëkk bi bañatee def lu mel noonu kon ñi ngi félicité bu baax ki nga xamante ni aussi mooy notre frère Barthélémy ndax gis nañu ni sénégalais yi am nañu naqar ci li nga xamante ni moo jàll ci réew mi loolu yëpp ñi ko teg président de la république mooy entourage am kon na gën a defaraat entourage am am na ci ñoo xamante ni ñu ngi koy jàppale di jàppale seen askan di jàppale seen ay population mënoo nekk ministre wala nga nekk DG fay sa ay téléphone gën a nekk star Macky Sall gën a nekk star président de la République bu la nit ñi soxlaa dooy président de la République sax day dem di jaale ay dëj yoo xamante ni kenn du ko yëg kon mënoo nekk ministre wala nga nekk directeur tëj sa ay téléphone jàpp ni yow yaa gën ñëpp barki dee moo njaay ñëpp xam li nga nekkee ci dëkk bi tey ñu fal la ministre ngay xugali ay mbagg di jaar fii di jaar loolu président da cee war a tirer conséquence jël leen dàq leen ba pare jox leen justice ndax ñi nga xamante ni luubal nañ fi loo xam ne justice da leen a war a woo bari na fi yoon nag loolu ba tax na sénégalais yu bari xaw a mere gouvernement Macky Sall ndax président Macky Sall am na ci lu bari loo xam ni xamu ko ndax ñi ko jege duñ ko wax dëgg ci ñi ci ëpp fee ci Touba aussi am na ñoo xam ne xam na leen bu baax war na leen a mën a jël teg leen ci yoon boo xamante ni dinañ ko fa jàppale mais ña nga xamante ni ñoo koy wax maîtriser nañ Touba bi mu toogee ba léegi war naa xam ne dañ koy nax sama waxi démb mooy sama waxit tey